Gerejeknya orang Subang. Bamba Papu, Bamba Messi, Kacenggala Mamak Sherman Ibrafat, Kacenggala Mamak Sherman Ibrafat, kita Cinyun, Kentu Syekh Ahmad Kerabat kita Kentu Syekh Ahmad Kerabat Benore, Bamba fépp. Bamba fépp. Bamba partout. Bamba partout. Bamba maintenant. Bamba merci. fas yéene liggéey Serigne Touba. laa ilaaha illallah. ci anam bu sell. fas yéene liggéey Serigne Touba. ci anam bu sell. fas yéene liggéey Serigne Touba. ci anam bu sell. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. laa ilaaha illallah.